ñi ngi tolloon nag ci ne yonente bi alayhi salaatu wasalaam bi mu daataa woote li ko yàlla yónni bi ko yàlla yàlla daataa yónni ni mu nekk woon ak waa Makka ak ña nga xam ne ñooy ay bokkam tey nag ñu bëgg a tàmbali ci bi nga xamee ne yàlla yónni na ko te xam nga ne booba mi nga am ñeent fukki at yonente bi sallallahu alayhi wasallam bi nga amee ñeent fukki at rek ci la tàmbalee woote xam ngeen ni yonente yi daanaka ñoom ñëpp ku ci am ñeent fukki at ci la yàlla yónni li ci ëpp yonente yëpp ku ci ñi ci yàlla yónni ñi ci ëpp dañuy dem ba am ñeent fukki at yàlla doog leen a yónni moo tax yonente bi alayhi salaam bi mu amee ñeent fukki at ni mu njëkk a feeñee yonente gi mooy da doon yàlla da ko bëggloo ak beru muy jënd dëkk ba di dem fi ñuy wax xaaru xiraa xaaru xiraa ab montagne la wu nekk ca biti biti biti biti biti biti mag nekk ci montagne yi ñu ngi ko wax jabalu nuur moom Makka daanaka ñetti kilomètre lay xëcc lay xaw a toll diggante ak Makka yonente bi nag foofee la laa dem bu masaari demit day jël ak njabootam yóbbaale leen bañ jege ko mu samp foofa ay xaymaam ak nekkuwaayam di dem nag ci kaw montagne bi montagne ba yéeg fa ba léegi ci yombut ndax mi ngi guddee lu mat ñeenti mètre ñeenti mètre ci kaw jëm jëm kaw yonente bi nag doo ko doo ko daay yéeg ba fi mu ne nii bari na ñoo xam ne dañu aj màkka te duñ fa yéeg ndax guddaay ba ak sonle bi nga xam ne moom la coono bi nga xam ne moom ki koy yéeg noonu moom lay daj montagne woowee nag fa fa la daa dem ëpp na sax ñeenti mètre maanaam jëmmi jëmmi pax mi jëmmi funti ma nekk ca kaw moom laa bëgg a wax ni mooy ñeenti mètre tolloog benn mètre nag la yaatoo benn mètre la la yaatoo foofee nag la daa dem ba ca kaw mu dugg fa toog fa di seetantal ak di xalaat ci digganteem ak boromam ak li aw nitam nekk te mu wóor ko ne du dëgg te gisut leneen lenn daanaka leen ci mën a xeetali xam nga boobu waa Màkka xam ngeen ne dañ doon jaamu ay xërëm xërëm yoo xam ne dañ ko yett defar ko ba mu nuróog nit dañu defar yu mag ak yu ndaw di ko jaay nit ñi di ko jël di yóbbu seeni kër xërëm bu ne ñu ne xërëm bii mooy ngir am nangam ngir takk soxna am na xërëm boo xam ne moom ngay wut ngir sa commerce dox am na xërëm xërëm boo xam ne moom loolu lay jago loolu lañ ko toppe woon ni nga xam ne Seydina Omar nett nañ ne moom wax na ne xërëm yi mas naa fàttaliku lu xaramu mooy xërëm yi dañ ko daa def léeg ci mburu nga xam ne wax na ne kenn ci ñoom daana tukki lu sori yor xërëm yi mu nekk mburu nga xam ne bu demee ba jaaxle ba jaaxle xërëm bi ci boobu lay far xewloo loolu lépp na Seydina Muhammad gis ko xam ne lii ay caaxaan la taxoon na yàlla soploo ko beru muy beru di xalaat ci lu bare bare bari ci àdduna bi ak li ci aju bi nga xamee ne itam am na ñeent fukki at rek ci la tàmbali beru boobu waaye itam ci la tàmbali di gént gént yoo xam ni lu ci ne nam ko génte bu xëyee noonu la ko jëlee foofu la yonente gi tàmbale mooy dafa am juróom benn weer yoo xam ni mi ngi tàmbalee ci weeru weeru wii nu nekk muy weeru gàmm wa ba ca koor ga diggante juróom benn weer yooyu day def lu mu ci gént xam nga ne ci ci ca koor ga ci la ko suñ borom yónni ci la jibril ñëw ci moom njëkk ñëw ci moom juróom benn weer ya ko jiitu nag da doon def lu mu gént rek bu xëyee na mu ko géntoon la ko gis la koy gisee loolu la yéen yéen bi ci moo wax loolu bañ àggee ca koor ga nag benn bis rek la toog ci xunt bi jekki-jekki jibril ñëw di malaaka moo xam ni keroog la ko njëkk a gis yonte bi moo ko daa nettali li soxna Aysa nettali te wax ne yonte bi moo ko nettali wax ne daa jekki-jekki fi mu toog rek malaayka mi jekki-jekki nit maanaam taxaw ci kanam yor jëmmi jëmmi nit la la la amee nee na bi mu ko séenee rek daa daal tiit moom yonte bi alayhi salaam nee na jibril ne ko iqra jàngal mu ne ko man duma ab jàngkat ne mu gësam ko gësam ko gësam ko bàyyi ko ne ko waat jàngal mu ne ko man duma ab jàngkat mais mu jëlaat ko tax ko ci boppam gësam ko doo ko wax nag ne ko iqra bismi rabbika alladi xalaq xalaqa linsaana min alaq iqra wa rabbuka lakramu alladi allama bil qalam allama linsaana ma lam yaalam foofu la yem ci ay foofu la yem ak moom daal di ne mes nag moom malayka bi bi mu demee nag nee na yonente bi nee na mu daal di tiit mu ruy jàpp mu daal di gaaw rek wàcc dem këram fa soxna Xadija ne ko nag man daal tey li ma gis moom doy na waar mais bi mu agsee ci kër gi sax daa tàmm di wax naan zammiloon yi mooy mooy mooy muur leen ndax booba mi ngi def ci bët yi ak xel mi mu mel ne day jàndoog moom ba tey li mu gisoon te Jibril xam nga yonte bi gis na ko ñaari yoon ci melam am nañu wax sax ni yoon wu njëkk woowu da ko gis ca melow melow melowu mag wa maanaam ba muy dem da ko séen mu nekk ci melowu mag wa mooy daa fees gox yëpp nga xam ne lépp ba jëmm ji daa fees mbooleem asamaan si kursi yëpp nga xam ne lépp da mel ne jëmm jëmmam ji da ko fees riyaay boobu nag ak màggaayu jëmm jooju mu gis nga xam ne am na nett li boo xam ne dafa xam ne am na ci laaf lu xaw a jege juróom benn téeméer laaf maanaam mbir yëpp mel noonu la ma sa gis loolu moo ko moo ko moo moo moo ko mooy li ko tiitloo bu wér a wér bi mu ñëwee nag soxna Xadija ne ko daal man li ma gis nettali ko ko soxna Xadija la mu ko njëkk wax mooy yow daal ak lu mën a xaw rek yàlla du la gàcceel ndax yow nit ku baax nga te ku mën a jokk mbokk nga te it ku mën a dimbalee nga moo tax yàlla du la teg gàcce mukk lii xaw ma lu mën a doon waaye du doon loo xam ni lor lay doon jëm ci yow. fekk soxna Xadija am na bàyyi am na doomi bàyyam ji ndaw di ñuy wax ku ñuy wax waraqatu bu ndaw nga xam ne doomi bàyyam bu ndaw la ca la ko ca la fa da ca la ko yóbbu nag waraqa moomu ba mu demee fekk waraqa doon ab nasaraan chrétien la woon bu mënoon a jàng itam ibra li ñuy wax ibra làkk li ñuy wax ibra da ko déggoon muy làkku juif yi ba pare daa ci bind lu ko neex lu mu ko neex la ko la ci doon bind xamoon lu bari nag ci mbiri diine yi moom waraqa loolu moo tax soxna Xadija yóbbu ko ci ne ko kat sama borom kër bii dafa am lu mu gis nettali ko ba àggal war a xamul ko ne ko lii mu gisee su fekkee noonu la ko gisee mooy malaayka ma daa dikkal Seydina Moussa kooka la loolu rek la mën doon ne ko de yow de xam naa ne kon yaay war a nekk yónnante jamono jii bis boo tàmbalee woote de ak a neexoon boo mu fekk ma ci sama waxambaane ndax boo dinaa la jàppale ba buñ lay génnee ma taxaw ci sa wet yonente bi ne ko waaw ñoom kon dañ ma génne mu ne ko amul fik ndax lii li ngay woote muy ak yonant ku ko mës a woote rek say mbokk duñ ko xam moo tax dañ la noonu ba génn la ci loolu nag loolu tam xaw naa dalal xelu yonante bi ndax yonante bi ci njëkk dafa wax seet na soxna Xadija ne ko man damay ragal mu doon mbirum jinne mooy jin jinne yi ndax boobu boo jamono ñëpp xam na jinne xam ne yi sadd nit di feeñu nit di ko dofloo loolu la ragaloon bi nga xamee ne waraq nag te mu xam mbiri diine yi xamal na ko loolu ci la xam ci la daal di xelam tàmbali dal yàlla dogal nag yonante bi ginnaaw ba muy delluwaat ci xunt bi maanaam bi mu xamee ne lii xëy na du mbirum jënne ci la tàmbali dalaat ci xuntuma waaye yonent ci moom yonent bi ci moom danaa wax nett li ci li nga xam ne noonu la imaamu tabari nett li wax ne booba moom am na jaaxle gu mag ci boppam ndax xam na ne lii nii su fekkee ak yonent la yàlla di ko yónni ak wax jii mu ko jot a wax muy alxuraan jii nii amul sukk ne waa Màkka dañ ko tuumaal ne ko yow ab saaneer nga ab waykat wala wala da ngaa dof ñaar yooyu faw ñu tuumal ko te loolu ñaar yooyu mooy li ko gënoon a naqari ci adduna bi maanaam ab waykat mbirum way moom soxalu ko woon ak ndox it nee na mënu koo maanaam maanaam maanaam maanaam gàddu mais ñaar yooyu mooy li ko gënoon a naqari ci dundam te mu wóor ko ne dañ ko ko tuumal yàlla dogal nag nee na fan yooyu muy def léeg-léeg su jógee ca xunti ma di ñëw bu demee ba yéeg ci kaw montagne ba jànn suuf bi mu mu sori ci moom xaw montagne di nekk ci kaw neen du damay xalaat ne dama war a jëkkee ko rek maanaam daanu fii ngir ma faatu far ganne ndax mbir yi daal maanaam boo soof na ko waaye neen bu ma demee ba bay waaj sànni sama bopp di daanu rek gis jibril di ko taxaw sama sama kanam ci image boo xam ne nee na maanaam jëm ni li ñu gis moo koy soxlaal ba du bëgg maanaam du def lu may taxaw di ko seetaan rek day jibril nee na day ànd ak ay ay leer ak melo woo xam ne wu yéemu li doon nee na mu di ko seetaan di ko seetaan ba nim ne mes neen loolu moom moo moo tee ma fan yooyu ma xaru mais am na bis boo xam ne sax neen soxna Xadi jëmum fa mu ne yónnee na Màkka di ko wër te ko dafa du yàgg ñëwut ne mu di ko wër di ko wër diñ ko wër ba ñu ko doon wëri Màkka del si wax jotuñu ko gis moom yónte bi fekk boobu ne ne loo Jibril moomu laa gis di jàndoo moom di ko xool nee na ba ma delloo Xadija leeral ma ne ma yow de wër nañ la ba sa ba to- ba ba sonn mun xamuñu foo nekkoon ne ma xamal ko ne ko man daal yooyu ma doon gis ba léegi moo moo moo moo moo dañu ko di ko wan wax ko itam ne ko dama cee tiit ragal muy loo xam daal du lu du lu baax wala mbirum jinne xadi soxna Xadija dara laat xelam ne ko yow yàlla du la gàcceel moo ko ci loolu it ñu teg ci ay fan yoo xam ne gisatu ko maanaam malaaka mi dana ko gis ci bu demee ba nar a xaru noonu dana ko séen waaye waxatu ko dara maanaam bu demee ba nar a xaru jibril da koy feeñu rek ci melo woowu ma waxoon xamal ko ne ko yow yaay yónnante nit ñi yaay yónnante xeet wi maanaam bul xaru bul def dara yàlla lu baax rek la na ma ci yow dara xelam waaye nag wàccewut ci moom alxuraan fan yooyu yëpp yàlla dogal ñàkk gi ñàkk a wàcc ci moom alxuraan nga xam ne waxatut ak moom wax ji mu njëkkoon wax muy saaroowee loolu tàmbalee jaaxal yónnante bi loolu it day day da nga ci dégg ni yonte bi kon tàmm naa miin mbir mi li mu doon gisut xam tàmm naa dal xel ci ne lii du mbirum jinne mbir mu baax la ñàkk gi mu ñàkk a déggaat alxuraan gi ñu ko doon wax diir bu yàgg boo xam ne wa dara wàccut ci moom loolu mett gi mu ko mett day day wane ne tàmbali naa maanaam xelam di dal ci maanaam yonte gi alxuraan ji neex na ko moo tax bi mu demee ba jàpp ci xelam ne yàlla kat boo muy tuut mën naa am da ko mere moo tax wàcceetut wàcceetut wàcceetut moom ci wàcceetut alxuraan ci moom gis nga ci la saaru wadduha wàcc suñu moro xamal ne ko maa waddaaka rabbuka wa maa qalaa sa borom bañu la bayiwu la itam ci loolu itam lu lu gudd la xam na damay wax rek nii yonente bi wax na itam ne ci fan yooyu mu daa jëkkee ko rek gisaat jibril ci melo wa nga xam ne moom la ko yàlla bindee ne mu toog ci ab chaise fees jaww ji yëpp ni ma ko waxoon ci meloom woowu waxaat ko wàcc ci moom saar yu wax yu tàmbalee si yaa ayyuhal muddassir qum fa anzir wa rabbaka fa kabbir wa siyaabaka fa tahir wa rijza fahjur wax ko baar yooyu ak aaya yooyu dal di dem